a reçu les résultats des examens virologiques ci-après. Sur 1040 tests réalisés, 82 sont revenus positifs, soit un taux de positivité de 7,9%. Les cas positifs sont répartis comme suit. 65 cas contacts suivis par nos services, 4 cas importés à l'aéroport international Blaise Diagne et 13 cas issus de la transmission communautaire répartis entre Mariste 1 cas, Zone A 1 cas, BOP 1 cas, Yarah 1 cas, Ouest 1 cas, Nord 1 cas, Almadi 1 cas, Grand Bau 1 cas, Kermassar 1 cas, et enfin Kaulak 4 k 34 patients hospitalisés ont été contrôlés négatifs et déclarés guéris. 21 cas graves sont pris en charge dans nos services de réanimation. Deux nouveaux décès liés à la COVID-19 ont été enregistrés dans nos structures ce dimanche 21 juin 2020. L'état de santé des autres patients hospitalisés est stable. À ce jour, 5 970 cas ont été déclarés positifs, dont 3 953 guéris, 86 décédés et donc 1930 sous traitement. Le ministère de la Santé et de l'Action sociale exhorte les populations au respect strict des mesures de prévention individuelle et collective. Tay, ak action sociale jot résultat examen virologique yi de di waaj limal ci junni ak ñeenti fukk test yi ñu def juróom-ñetti téeméer ak ñaar positif Madame, juróom benn fukk juróomi cas contact ñeenti cas importé ci aéroport international Blaise Diagne fukk ak ñett yi di ay cas communautaire benn ci Mariste benn ci zone A benn ci Bopp benn ci Yaraax benn ci Ouest Foire benn ci Nord Foire benn ci Almadies benn ci Grand Mbao benn ci Kër Massar ak ñeent ci Kaolack fanweer ak ñeent si suñu malade yi ñu hospitalisé woon wër nañu bésu tey ñaar fukk ak benn ci suñu malade ñu ngi si suñu service réanimation yi ñaari malade ñàkk nañ seen bakken ci bésu démb muy diber ñaar fukki fan ak benn ci weeru juin bi ñeneen ñi des hôpital ñu ngi am tan ci bésu dalee ko ci cas bu njëkk ba senegal waññi nañ fi juróomi junni ak juróom-ñeenti téeméer ak juróom fukk yu positif ñetti junni ak juróom téeméer ak juróom fukk ñett wër nañ ci juróom-ñett fukk ak juróom benn ñàkk ci seen bakken mu des junni ak juróom-ñeent téeméer ak fanweer ci suñu hôpitaux yi ñu leen di traité ministère bi gàlloo wërgu yaramu askan wi ak action sociale mu ngi dolli di ñax population bi ñu gën a